scandale yi bëri na ñu gis ne président Macky Sall jël na décision yolofal euh, mesures yi nga xam ne moom la jël ñu gis ne benn opposant bu mel ne Ousmane Sonko génn def euh, benn sortie critiquer gestion euh, politique kii di président Macky yow ñu invité la si benn télévision de la place ngay wax par rapport ak kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko ñu bëri jàpp ne yow da nga def benn malhonnêteté intellectuelle par rapport ak sa interprétation kaddu kii di Ousmane Sonko tey jii ñun Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. man yàlla dafa dogal ni sénégalais laa boo xam ni dama koy wax encore une fois man je suis un lanceur d' alerte man j'ai rien contre Ousmane Sonko on n'a pas de problème personnel. des fois dafay wax ay affaires yoo xam ne ànduma ci ma ne ànduma ci te sénégalais bu nekk am nga ci droit man li may wax nii tey sénégalais yi nga xam ne ñoo may liir wala ñoo may déglu bu leen neexee ñu ne maam góor li muy wax nii ànduma ci. damay sportif. mais sénégalais yi dañoo jaaxle le fait que lapsus bu Ousmane Sonko def par rapport ak mu ne Sénégal bëggoon wax que les sénégalais sont très disciplinés mu juum ne les sénégalais sont très indisciplinés yow loolu. loolu nga jël ko def ko benn combat. soxna mel ni euh, xam nga soxna si ñun ay sénégalais lañ tey Ousmane Sonko dafa am ay parents yu nekk fii ci dëkk bi am ñi ko jàngal école ngi fii ci dëkk bi ñi ko yar. ñoo ngi fii ci dëkk bi tey jii bu mënee làkk tubaab bu jub am na benn sénégalais bu ko jàngal bu mu mën a làkk tubaab bu jub est-ce que la bëgg a expliquer tey soo demee ba nga xam ne danga war a wax réew di la déglu période bi ñu nekk sax moo nekkul période politique boo xam ni tey jii nit ñi seen bakken lañu gënoon tal que taxaw di wax ay affaire xaste parce que boo xoolee Ousmane Sonko li mu wax yëpp gars yi wax nañ ko ba pare boo xoolee moom li yi di commentaire ci Facebook yeeg yooyu. comme loolu li may wax rek c'est que moom Facebook li ñuy wax na lii Macky Sall wax na lii ay lii wax nañ lii OMS wax nañ lii yooyu rek lay wax yooyu amul sens xam nga la léegi nga dëgg sa tànk nag def sa communication loolu di réeral sénégalais mais du réeral sénégalais parce que moom moo ko wax ci gémmiñam la génne su fekkoon ni génnewul ci gémmiñ daf may porter plainte mais moo ko génne mais moo ko wax yow lapsus la ci yow mais du lapsus ci man xam nga soxna si nit ki yow journaliste nga. mënoo nekk un défenseur de quelqu'un damay poser question waroo nekk défenseur am. non je défends personne. ni ngay waxee dafa mel ni da nga koy no no non no dama lay wax. moo ko wax ci gémmiñam man li may wax amul lu ma ci créé. ci gémmiñam la génne moom. bu woon dëgg bu doon sos la dafa may porter plainte. mais dëgg la moo ko wax les sénégalais étaient très indisciplinés moo ko wax. léegi nag tey jii nit xam nga nee nañ kat dina wax ba làmb taatam ni taat bi du sama taat. wax ju bëri baaxul soo bëree wax da ngay dem ba da soof. boo nekkee as quelqu'un qui aspire diriger un pays yow sa wax warul bëri benn bala wa booy wax benn yoon ngay wax par at sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma la moo taxoon nit ñi bëgg ko boo xee ren déwén lay wax est-ce que comprendre la mais yow mënoo nekk fii nekk benn ñebbe ci biir cin yow mosoo nekk ministre dama lay wax rek Ousmane Sonko mës ta nekk ministre mënoo nekk DG ñi fiy wut réew moo ci gën a inexpérimenté man dama koy wax li may wax ci internet laa koy wax di ko dégg mosul jiite dara. inspecteur des impôts et domaines. non dama lay wax xam nga lan la def xam la def sénégalais moo bëgg kuy xaste dama lay wax sénégalais tey jii yow jigéen nga boo jàngoon alxuraan léegi tarifi saar yi gën a mag ci àddina ñaari nit ñoo koy publier mais boo sumeek woon léegi yow sol yére bu yaraax Sénégal àddina bi yëpp yëg ko sénégalais ñoo bëgg waxuma ñëpp nag waxuma sénégalais yëpp je dafa am ay nit yoo xam ni duñu bëgg lu kuy xaste Ousmane Sonko dafa nekk ci état di dundee nguur. nguur di ko fay mu am benn position muy profité ci position di xam ay secret ci état bi di ko dévoiler te loolu waru ko def parce que état koy fay état dàq ko ñu mu victimiser boppam di xas état bi di xas Macky Sall sénégalais ñoo bëggul numéro un boo nee Sadio Mané ñu saagu ko boo nee El Hadj ñu saagu ko boo nee président Macky Sall ñu saagu ko koo lim ci dëkk bi koo xam ne yàlla may na ko dara ci li nga xam ne moom la mën dafa am ñoo xam ne dañ fi nekk pour di saaga ñooñu est-ce que tey jii am na ñoo xam ne tey jii yow bu la yàlla jëloon léegi nii jëlee la fii nga nekk ci tii yóbbu la nga nekk première daam am na ñoo xam ne mënuñu accepter loolu pourquoi madame Biteye xaw ma nu mu tudd euh, ma euh, nan nga madame. Biteye waaw bii nekkoon fii pourquoi tey jii mu doon lii dafa am ñoo xam ni seen xol moo àttanul loolu dañu bëgg kuy xase am na ñoo xam ne bëgg nañ saaga benn kilifa mais seen position wala ñoom ni ñu mel mayu leen ñu saaga kilifa gi bu ñu gisee ku leen di saagaal kilifa gi dañuy kontaan. kooku la ñuy jàppale di ko supporter dama la bëgg expliquer dafa am ay sénégal yoo xam dañuy gis seen bopp waxuma ñëpp nag si moom parce que dañ ko gis muy xaste lu nit def mu dingat la mel ni góor wat bank góor bopp koñ yooyu yooyu c'est pas bien moom pour mu nekk député xam na la nekkee député plus forest la jàllee dañu dafa dañu wooteel député yëpp ba pare ba ñëpp a jàll ñu dem ci mbalit mi xool desitu carte yi ñu dajale ko ñoo loolu mooy plus forest dama la non même rek non dama lay non même rek ma la da nga ma posé question dañuy waxtaan pour ma leeral sa bopp moom noonu la jàlle pour nekk député plus forest la jàlle ñu dem élection présidentielle Ousmane Sonko nekk fi di wax ñu tëj Karim Wade ñi mere Karim Wade ak ñi mere Macky sàll ndax Khalifa Sall ñoo ko wooteel mais bu doon moom kese du am ñetti carte parce que plus forest la jàlle léegi ñi nga xam ne dañu faraloon euh, euh, Karim Wade te Karim mënul nekk candidat ak ñi faraloon Khalifa Sall te mënul nekk candidat ñoo ko wooteel te malgré ñooñu wooteel nañ ko mais 15 pour cent la am Macky Sall mi muy diiranteel mbagg presque 60 pour cent la am 4 fois li mu am 58 pour cent la am boo ko divisé par 4 presque 4 fois li mu am la am keneen ki ci topp presque am na 40 pour cent muy Idriss Seck yeneen ñaari candidats yi si man mën naa dem ak ñoom élection parce que nu mu tudd Madické bi muy ñëw ci élection présidentielle bi il est venu à un des élections kooku kan la mën a raw bu rawee ko loolu xanaa miracle la dañu wax rek quoi keneen ki si des monsieur Issa Sall tey jii dama koy ñaanal sax mais tey jii am na benn moment ñuy wax ni mook sëriñ bi jubóowuñu ci seen kii bi noonu kii bi benn moment xam nga ñi nga xam ne dañu kii sëñ bi les fervents kii mën nañ ko bañ a moom xam nga ñi naan am na Sénégal yoo xam tamit dañuy jàpp ne loolu daayira la wala dara ñu bañ ci dugg est-ce que la bëggee kon Ousmane Sonko moo jël ndàdde ñetti daal la woon Macky Sall loon Idriss Seck ak moom moo jël ndàdde il faut yéen journalistes yi ak sénégal yi nangu ni moom moo jël ndàdde parce que toog na deux ans di xas ay nit koo wax mu ne sàcc la koo wax mu ne triant la te ñooñu dañu am njaboot yor ay doom moom ñi muy xas noonu dañu yor jabar ami doom seen doom di dem ci école yi di jàng ñu naan leen seen papa sàcc la Ousmane Sonko taxaw ni sàcc la ñu est-ce que la man billaahi contre ma ko jikkoom laa contre man bëgguma ku yàq nit est la mësuma ko saaga mësuma li muy wax rek laay wax contre ma Ousmane Sonko billaahi c'est un sénégalais jeune la am na droit aspirer diriger dëkk bi mais yooyu da nga koy da nga koy def ci diplomatie ñoom mali Gakou ñu ngi fii yeneen candidats ñu ngi fii yoo xam ne c'est des candidats civilisés dàqu leen a jàng ñooñu ñëpp ñoo ko ëpp expérience parce que ñooñu bu dul dara sax nekk nañ ay ministre mais moom mës ta mësul ji jiite mësul nekk chef de quartier yow nga bëgg ni yow Sénégal yaa fi ëpp xam-xam ñëw na fii taxaw nii ñi fi njëkkoon a nekk dañ leen war a fusiller moo ko wax sénégalais yëpp di ko dégg ñoom Abdou juuf ñoom Ablaye Wade ñoom Senghor sunu paa yi fi nekkoon nga xam ni ñoo xeex indépendance Sénégal ay wal joojoo Ndiaye mu ne ñi fi nekkoon secteur boobu yëpp ñoo ñëpp dañ leen war a rey sénégalais yi ni non peut-être dafa juum affaire tey mu retourné waat ni les sénégalais sont indisciplinés nga ne lapsus la non nit ki bu fekkee da nga aspirer diriger dëkk Macky Sall a ngi nii xamala moo tax sénégalais woteel ko ba mu daaneel Ablaye Wade Abdoulaye ponkal la de politique rek la mën te nit ku baax la woon mais xam nga tax Macky daaneel ko ko wax ñu ne Macky dafa yaru sénégal yi mun nañ la jay nii nga taxaw di xas nit ñu naan waaw mais bu wootee jotee duñ la wooteel parce que dañ naan booy bi dafa xamadi. merci beaucoup Mame Goor ça a été un bi jeex na ce de la fin. bëggoon naa tamit alerter mooy le problème de la Sénélec ak Akilee mooy contrat boo xam ne dañuy wax ni Sénélec DG bi fi nekkoon moo ko defal Akilee. ak lay nekk xam nga dëgg la expertise locale bi dañ ko war a jàppale mooy ñi nga xam ni c'est des sénégalais yoo xam ne dañu ubbi seen société ñëw di wut ay convention ñu war leen jàppale ñoo dañ war a jàppale doole leen sénégalais la ñëw na ñu signer ko contrat mais man dama jàpp ni bu fekkee nii tey jii benn ministre benn DG dafa nekk ci benn direction di fa liggéey ba am satisfaction ki nga xam ne moo ko fa teg muy le président de la république mooy Mamadou Makhtar Cissé tey ji bu amul sa président amul woon ci moom satisfaction du ko def ministre du pétrole tey ji ki nga xam ne mooy bi tey bu ko président tànnee ci biir mu nekkoon biir Sénélec ci syndicat yi xawma lan di fa liggéeyee ba ñëw jël ko def ko DG ça veut dire que ni gis nañ ci moom def nañ enquête de moralité def nañ ci moom dara parce que nit Sénégal duñ la fal te amul ay renseignements généraux yu la topp laaj la kon nag tey jii ñooñu mënuñu bokk benn teen bu ñuy rootee ba pare di xeex seen biir bu ñu bëggee jàppale la président de la république mu am ndam dañu war a doola booloo di xàcceendoo di tóorandoo man du ma ni Akile la du ma ni Matar la Matar Cissé c'est quelqu'un boo xam ni ñëpp xam nañu nit ku am yar la ku am teggin la kenn mësu ko dégg ci dara liggéeykat la ki ñëw nekk DG bu bees Senelec tamit yaakaar naa ne bu nekkul woon jàmbaar président du ko teg foofu donc nañu fexe nu ñu trouver terrain d'entente te bàyyi xeex par presse interposée bi amul benn sens merci beaucoup